dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yawma hisaadihi wala tusrifoo Cheikh Abdoulaye na nga nu laatuwaale ci barke Seex Bamba mi sab jubaale ki jël def mu ganti mbindeefo dofal Bamba xaadim mu fal Seyxuna su duniyaa defoon kër gu ñàkkul solo danay feete woo def la kombatina jëmul joo xam ne jii daanaka rek dafa xew a li ñuy ci kilifa yi ndax moo fi jëkk a tudd Abdul Ahad sëñ Tuubaa tudde ko ko Abdul moo fi gisati rek moom lañ ko tudde ni nga xamee tur yi li muy tekki mooy kenn noonu la nekk woon kenn ci jikko ji ak fit wi ak euh, pastéef bi ak taalibe gi ak gëm gi yàlla ak euh, dog gi mi ngi feeñ ci ama balsasin ci weer wii ci ñaar fukki fan yi ak juróom ak ñett ama bal sësin ci njaareem gannaaw boo xam ne bii sëriñ bi jóge ne gànnaar ba dikk jolof ba jóge fi dikk njaareem ci ama la sësin ñu toog fi ñaari at ñaareel at ba di ama bal ci la sëñ Abdou Lahad Mbacke feeñ waa juróomu jigéen mi ngi tudd Soxna Marema Jaxate moom mook sëñ sooy bu ñoo bokk ndey ak baay waaye bi mu feeñee sëriñ bi ci boppam feeñal na ci ay yëf lool yoo xam ne yu ci nekk rek feeñal na ne kii borom mbir la bu yëg bu yëg si ku taseeg jamono moom jamono da xam ne borom mbir la ndax ci sa wax nañ ne woo na ay jëmm yoo xam ne ci taalibe yu mag yi la xamal leen ne na ngeen dem fa nopp ba ngeen jàng fa xasit gu ñu tuddee fusti bi darbil xasanaat nga xam ne Mariam mi nga xam ne mooy yaay Seydina Isa Seydina Isa moom la moom la fa sëñ Tuubaa yi tagg moom ne nañ ko jàng foofa tifli ko ci noppam te it ne na ko ñaanal mu dund ndax am na ci moom yaakaar lool. sinu la feeñ fa njëriñ nee nañ keroog la sëñ bi wax des koo yéem nee na keroog diine ji ak lislaam ji dëkk nañu mbég mu rëy rëy ci gan gi waxaat yeneeni wax yu rëy ci daraja ak i ngeneel wallaahi moo am maxraja ba bis ba dellu see dat koy berndeel dal néew abdul ahad moo barkeel am naa ci yaakaar lool ca abdul ahad mi le kon jooja yaakaar seere say jëfam yi le mu am fa ab diir dal di jàngi alxuraan fab ko fa mokkal man xarut man na bayaan soobu ci xam-xam jël ca lam ca soxla xam na bëggug baayam ko am fa séef la ngir bamba wax nanu ci xeeti xam-xam yu am njariñ ak yu amul jaat xam inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna alfunoon inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna alfunoon falxilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun maha diraaya sëriñ Abdou Lahad nag moom mbiram dafa yaatu dafay nituk tiraanga dafay nituk xam-xam day jàmbaar xam-xam boobu nag da ko jële ci sëriñ tubaab bi nga xam ne dafa wax ni man yàlla mi wàcc alxuraan moo ma firil alxuraan loolu nag lu neex a xam la ndax tënkal nañu alxuraan ci piri moo xam ne li ko dale ci fi mu tàmbalee ba fa mu yem ak lu téere yi réy réy mënta génn loolu sëñ Tuubaa dane bi sunu borom bindee rooy daf leen a wax ne leen ana kuy seen borom yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk a wax ne ko yow mu ne ko gannaaw yaa jëkk a tontu yow laa jiital yaa gën ñëpp yaa jiitu ñëpp ak sëriñ Tuubaa ne masque ay alxuraan yëpp génnul ñett masque yet masque ak lonk masque néeg mu ne ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeete na am ñu jóg bañatee nelaw ñooña ñooy waa masque ak yat gi dañu jug te dootuñu dëng moo tax sunu borom jëkke ko ci alxuraan ulaayika ala hudan min rabbihim wa ulaayika humul muflihun nee na ñooñu naa naagu na leen ndax mel nañ nañ war a mel ba noppi mu des masque néeg gi ñooñu li tax ñu sakk ko mu mu seen xol yi ñu sakka tax mu ne ñooñu ñooy yéefar yi weddi nañ te dootuñu gëm mukk nee na ñoo ñu yonante bi naagu na leen ndax bokk nañ ci seytaane ba noppi masque lonk bi nag mu ne moo waral coow li mooy nafiq yi bu ñu demee ci jullit ñi ne ay jullit lan bu ñu demee ci ñeneen it ne leen lu ngeen nekk ca loola la nekk waaye dañoo defee ne dañuy nax yàlla waaye seen bopp la ñuy nax sëñ Tuubaa ne masque lonk googu nag di nafiq yi bu yonante bi amee la mu bëgg day dagg cet si mu des lu jubli bu boobaa ñu jub bu bu Iblis amee la mu bëgg banque li woon mu soppi ku masque néeg ñu doon ay yéefar yaakaar naa ne loolu ëmb na alxuraan jépp loo gisaat mu des ci alxuraan day leeral aka saraa waaye loolu mooy bas sëriñ Abdou Lahad tibbi ci sëriñ Tubaa xam-xam boobu di xam loo xam ne doo xam fu mu ko jële te bi ma nee jàmbaar waxuma jàmbaari xeex jàmbaari tabe dafa wax ne ku la man ci joxe bu ngeen xeexoon moo moo lay moo lay man moo ma wax loolu dafa wax ne xam nga tiraanga fu mu tàmbalee ma ne ko déedéet mu ne ma booy li nit tàmbaleel ci raxasu mi na ndox mi bari ndax gan boo ko joxee ndox mu néew bu raxasoo bu ndox mi tilimee fa la gàccaam tàmbalee teraange si ñëpp laat ci bóolib raxasu la dale sëñ nee na ma xàmmee nga luy dund ci yàpp wu ñurut ak luy dunde leneen lu leen wutale ma ne ko déedéet mu ne ma luy dunde yàpp wu ñorut du am bruit mu ne ma gaynde boo doon nelaw bu jaaree ci sawet doo ko yëg moo sit xaw naa dem ci loolu mu ne ma waaye gis nga ganaar boo doon nelaw bu la rombee da yeewu mu ne ma xam nga looy xàmmee luy gis guddi ak luy gis guddeeg bëccëg ma ne ko déedéet mu ne ma loo xam ne buy xef xef yi day jóge kaw jëm suuf mel ni nit cig leer la mën a gis waaye du gis ci lëndëm loo gis xef yi buy xef day day jóge ndeyjoor ak càmmoñ ñu daje luy xefe noona lu ne dana gis ci lëndëm am na bis ma ne ko man de ñu di la nax daf maa tiis mu ne ma xam naa ko xam naa ko xam naa ko ci yow waaye dafa am loo xam ne dama la ko bëgg xamal nit bu lay jéem a nax nga won ko ne ko xam naa ndax ya dalay fexe leneen lu gën a raw loola moo tax ku may nax ma nangu ci pexe mu jëkk ñi su ko defee pexeem yépp yam ca bu ma fittiwaatee jëlaat sama bopp nee na ma xam nga jàng tubaab nu mu demee ma ne ko déedéet mu ne ma weesuwut ñett njàng mu jëkk mi njàng mi ci digg bi njàng mu mujj bi njàng mu jëkk mépp nee na mooy dañ lay jàngal ne la fexeel bu la kenn mën a nax nee na jàng wu jëkk wi weesuwut loolu jàng bi ci des mooy fexeel ba koo mën a nax nga nax ko woowu mooy wow ñaareel wu mujj yi nag mooy fexeel ba koo nax du xam ne nax nga ko moo tax nun kenn mënunoo nax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ko yaay koo xam ne fa sidqu nusika laa taxfa ala ahadin lil alamina wa kullun anta rahimu say laa biire yu dëggu nëbbuwul ci kenn bindeef yëpp jariñoo nañ ko ci Cheikh daal ne fi ne àdduna jamono jotugul jotugul li si ñëpp lax lax maanaam jamono jotugul boo gisee ñenn ñu sonn li jëggaani jamono jotagu Cheikh Abdoulaye te bari na ñu ni sukkandikoo seeni wax jamono weesu na te Cheikh Abdoulaye jamono ak seegu ci ay mbiram mu ne ko waaye yow yaay koo xam ne it yaa xayra man dafa am ku ne ko yaa xayra man warisal xadiim wilaayatan wa diraayatan wa shajaatan yaa aydan daan na yaay ki gën ci ñu donn Serigne Touba da ngaa donne Serigne Touba ci wilaaya doon na ko ci xam-xam doon na ko ci ak njàmbaar nee na loolu lépp lu si laxat yaa ko doon sëñ Tuubaa daana ko man xaasakum mu bi si waa xadiimal Mustafa faqad ibtala ithman mubiinan fa'alahu nee na ku la gam-gam lee kenn di la natt ci lu dul sëñ Tuubaa nee na nar na naru leen nag yow daal amul kenn ku lay gam-gam lee lu may na la yaay sëñ Tuubaa rek am na ko ko waxoon na ko fa ka annama bambal xadiimu xaqiqatan aada saqsan ismuhu Abdullah daa mel ni sëñ Tuubaa dee si waat jamono rek dëgg dëgg nag soppi ko nag tudd Abdullah waaye yaay sëñ Tuubaa loola it boo delloo ci Cheikh a Aziz Sy Dabakh mi nga xam ne moo moo nekkoon xalifa Alaaji Malik lu chef la bàyyi ko ko da am lu mu ko wax dafa wax ne ko ab rayta baxdak madaxan madaxan aylaman olama yaa ajwada naa si kuran mufradan alayhi nee na ko gàcce nga laam bàyyi nga saw ginnaaw tagg woo xam ne du fay mu yow Cheikh Abdou yaa ngi koo xam ne yaa gën a tabe ñëpp fa nga nekk na ko kam min kam min ka imin xalla saatukum wa aba yaskurukum kam kam wa kam wa kam bari waana ak waa ji ñàkk jo jaaxle tumuraan ñëw bu sa ëtt ba incha allah waaye buy delluwaat day sant na aka bari aka bari bari ñoo xam ne jaaxle ak jàqare la indi woon seen aji jëpp faj na loolu si yëpp si si moo ko wax daal dina ko nag sa yettumu kullama qad kaana munhadima min baadi waalidikum ya safiya shiyam mbooleem luñ tabaxoon te sa ginnaaw bàyyi tabaxaat ma dem ci bokki jullit yi ak bokki taalib yi nga xam ne ñoo fi teew nuyoo ñoom waxtaan ñoom waaye yéen daal li ma mooy sama cant ak sama ñaan te lu wér la ci man asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi nga xam ne teew ngeen fi yëpp yéen bokki taalib yi yéen bokki taalibe yi murit yëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant ci kilifa yi diine yëpp yëpp yëpp amul ràññeele amul xaj ak seen ñëpp maa ngi leen di sant ndax ku ci nekk rek say ndaw teew la fi yu mati ndaw yu ma won ne jàppale nga nu ci li nu ne ba tax na li ci nekk ci man ci ak cant mënu ma ko sax a wax ñi nga xam ne ay kilifa la ñuy tey doon kilifa yi diine te seeni ndaw mënuñu fee teew wa mënuñu fee teew waaye seeni ndaw teew na fi yëpp nañu xam ne ameel nañ leen cant ameel nañ leen ngërëm noo ngi leen di ñaanal yàlla boole nu dimbali gannaaw loolu nag yéen bokki taalib yi mënuñu leen waxtaan waxtaan woo xam ne dama bëgg nu taylu ko bu baax a baax ma wax ko waxin wu leer ba ba ma fi bàyyi ko kenn du ne lii la jublu woon a wax ba lii la lii la façon woon a wax ba lii wax ji dama koy waxal sama bopp tojal ko sama bopp leeralal ko sama bopp ma di leen yëgal ne te tabaski ga wax naa leen di leen nun ay morit la ñu te duñu yam dong sax ci doon ay morit ay saarix la ñuy doon loolu la tax ma wax leen ko ci seen jëf rek laa ko gis ndax sëñ Touba moo sos murit waaye bi mu sosee murit it Touba gi da koo sos jële ko ca Touba ga ca àjjana kon nag bu waxee nag Touba li ab din muridin saadixin texe ñeel na bépp murit boo xam ne dëggal nga joxe sart yi nga ne ci la ab murit di dëggale muy ñetti sart ngeen boole ñetti sart yépp def ko te benn bu ngeen ci defan mu duyu sëkk may leen la ngeen bëgg kon danaa mën a waat ne ay saadix ngeen danaa mën a waat ne li ngeen bëgg da ngeen ko am ndax bi xidmatin la wax aw bi hubbin la wax aw adiyaati la wax te yooyu yëpp maase ngeen ci kenn ci yéen ku nekk teg na ci bakkanam di ci jëf la man lépp kon nag seenu saarix moom mën naa koo seere fu ne nga di leen yëgal nag ni leen nun sëriñ Tuuba la nu am te yaakaari benn murit bu jàll sëriñ Tuuba amul man naa daale fu ne di bérému waaye bu yegg see fi sëriñ Tuuba fi lay yem kon nag ngeen yëg ne Serigne moom moomu nga xam ne képp ku koy jox sa bopp da koy wax ne ko jébbal naa la sama bopp àddina jébbal naa la ko àllaaxira moom it mu wax ne képp koo xam ne ñëw nga fi man te àddina indi la fi jaaxaloo ma ndax yàlla jox na ma ba mu doy sëkk te soxlawu ma ci dara ku ko fi wut si am ko wax ne àllaaxira itam koo xam ne indi na la fi loo ci soxla mënal naa la ko te dinaa la ko defal wax ne kenn rek moo mën a jaaxal koo xam ne xaw ma na koy def mooy koo xam ne daal ni ma yàlla def néexu te loolu def na bëriwul kon nag ma di leen yëgal ni la ku yaakaar nit jébbal ko sa bopp àddina ak àllaxira mu mënal la lu ne tey ak ëllëg ah war ngaa góorgóorlu nag ci xam ne jébbal googu nga ko jébbal sa bopp mu nangul la ko. doyoon na sëkk teraanga ci seen diggante doyoon na ab sax seen diggante bu wëlbatikoo nag kenn ci nun ku ne mu teral ko teraanga joo xam ne gor ya daa wax ni koo ku leen teral ñu ne yàlla na nu fekk sa bis ba jaayte sunu bakkan fukkeel ba terelu monsieur su ko koo teral mu teral nu ko kon nag te am bis bi war a ñëw te ñëwagul war na noo baxal bis bi di ci góorgóorlu te dara mënu ko te ñëw te bu nu wéy ci ndigalam di di ko sàmm li muy tere nu di ko sàmm bu ñu ci yeggeen bisum ndam rek lay doon ci léegi nag man day def bu ma waxee ci kaw ñu ne day xuloo bu ma waxee li nu war a def ñu ne daa mer ma di leen xamal nag ni leen xuloo ak mer dara duma ko ci def feeg may dund ndax xuloo moom li koy waral xam naa ko ñaar ñu déggoo di ko rek ay xuloo te man du ma xuloog buur du ma xuloog baadoola du ma xuloog mag du xuloog ndaw mbir yi war a tax a xuloo moom lu jaar sama digg ak kenn xëccoo njariñ wala xëccoo ja moom doo ngay téye déggoo ba wax tax di xuloo te war na ci yàlla ni du ko defa ak kenn mer itam bu ngeen gisee ne jàppee na mer naa déedéet damaa am lu ma naqari mer moom dara mënu ma koo tax a def lu may gis rek lu naqari yàlla lu ma mënta faj loolu loolee dafa may naqari ngir la ma naqari yàlla dong waaye nag du tee naa xam ne inna minal mujrimina muntaqimoona yàlla bi mu ko waxee boo gisee kuy def loo xam ne lii neexul yàlla it bu la naqaree war nga mën a gàttal naqar wa yëgul fen man du ma mer du ma xuloo dama leer leen ma bëgg nag ñu wóor ci ngi ne sëñ Tuubaa mi nu yaakaar lu dul moom diiru li mu fi ne topp yàlla la ñuy digal jaamu yàlla la ñuy digal liggéey la ñuy digal jàpp sunu njàmbur la digal ak jub la digal ku yaakaaru du kenn nag la mu diglee da koy sàmm te fas yéene di ko def nan góor góorlu ci sàmm ndigal yi Sëñ Tuubaa moo nuy may ndamal tey moo nuy may ndamal ëllëg man nag maa ngi wëlbatiku ci kattanam ak darajaam di ñaan ci kattanu yàlla mi nga xam ne moom moom lépp ci soxlawu ci lenn mu defal nu yërmande defal nu ndimbal naataanga moom bëgg nañu ko lool danañu ko ñaan waaye naataanga doo booma jooma sa gis rek bekkoore ca topp naataanga jooma sa gis daa mu ji wow koŋ xéewal rek a mat a ñaan yàlla nanu ko yàlla defal defal ko réew mi defal ko mboolem jullit ñi xéewal ni ma leeral leen mooy lan mooy loo xam ne foo ko fekk day tooy xib te reen ba nga xam ne moom moo moo sax moo ko saxal reen bi bëtu nit du ca tege xam-xamu doomu aadama yeggu ci ba mën koo dog loolu muy xewil yàlla nañu ko yàlla defal te saxal ko ci réew mi defal ko mboolem jullit yëpp ginnaaw bu ma xamee ne nag jottali naa leen lii nga xam ne mooy sama yéene yéene ko ñëpp ñaanal leen ko ma di leen wax nag laa joo xam ne néewaa na lool Sëriñ Tuubaa tàggoog mbooloo ti waxu leen ko moom bu jëntale ko samay wax saabiqu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samaai wal ardi uhiddat lillazina amanu billahi wa rasulihi zalika fadlullahi yutihi man yasa wallahu zul fadli azim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xaw ma si li ma xam ci moom xaw ma ko ci kenn ku ku ku ku jeexal gor takk la du la wax mukk lëf nar lëf ne la wax def ko ne bëgga la waaye la wax nar ko nag kon sañ na ko waaw nit la woon koo xam ne fa mu teg sëñ Tuubaa ba tax lu ne mën ko sëñ Tuubaa ci ko ko xam da yëgu ko ko fa teg ndax kenn da nga teg sëñ Tuubaa fenn ah, waaye am loo bëgg tax fa nga ko war te tegu ko fa. moom kay moom nit la woon koo xam ne kii rek ñëpp la fi nekk lan ñi bokk boole mboolem ku la gën a yéen jigéen ñi am na boo xam ne bii sëñ soxna moom mi dafa daje dafa ànd ak soxna moom suñu daje fa di ko gane te bu yëgowuñu ba kenn ku ne ñëw fekk fa sa morom ci benn bis kenn ba mu ñëwee danoo woo nu ñëw mu ni ñaari borom kër yi nañ ma yet am xar bëgguma bëy nu indi ko moo tax boole ci woon nag rey lépp daal ni xam ngeen li ma def lu ma ci jubloo noonu ko déedéet de xamuñu ko de mu ne bu fi sëñ Basiru ak sëñ Fallu daje woon ndax daanu bàyyi ci sunu sunu dara ñu ko déedéet mu ne kon nag ñaari doomi sëñ Tuubaa yi bu fa dajee nu bàyyi ci leen war a def dara sëñ Tuubaa taxul nuy dafa am ñaari yëf yoo xam ne moom a gën a ñor ci lu mën a doon te ku ñu tudd tudd Sëñ Tuubaa ku ne loolu laay xool ci yow muy dëggu ku dëggu la du tricher lu mu la woon ci kaw moo ne ci biir ku gëm Sëñ Tuubaa lay te loolu rek la man laay nawee nit sunu yaakaari ëllëg weesuwut Sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amuñu lan lu ñu daariloo mën caa teg baaraam lu dul Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa mi yéen àndal day du ma ma leen wax fii mukk ne man ab Lahad nee naa sëñ Touba nee na rek laa leen fi wax sëriñ Touba nag dana am lu ma leen wax loo xam ne moo ko na ku ma defal la nga man danaa la defal loo mënut ku ma defal loo mënut danaa la defal loo la jomb te loolu yéen yi ñëpp wóor na leen xam ngeen fi nit bu fekkee la mu waxoon bu ba jëfam ñëwee moo wax jaa ànd di benn ñi sa ngoogu kuy wut nit ñi sa ngooga kuy wut àndandoo jàppanteel ko jàppanteel a ngooga noonu la ñuy war a mel. lam daa doxe rek ak a muy ko dem ma dem ku wut demul ma dem sëñ Touba rek la ko moo ko ñoroon ci moom doo nga leen xam ci moom lu ko képp ku bëgg sëñ Touba bëgg na la képp ku ko woon gannaaw mën na laa bañ a gis te adduna ak alaaxira waaw ñun ñëpp li ma xam ci moom mënu ma ko wax lépp ndax euh, dafa dafa jeexal sama xol tal takk takk tàkk tàkk tàkk bu dara de siwumu ko waaw jëmm la joo xam ni daal nekk na ci àdduna yor yor perkaal bu sol mbubum perkaal xuus ci góoju géeju dex ba jàll te amatu gàkk loolu laa xam eh, eh, sëñ Blaat. sëñ Mourtada danoo toog si muy seetaan kaset bu ñu ko tegal noonu ca Suisse euh, bu sëñ muy wax mu di ko xool mosuma gis sëñ Modou laa kii nag waaye gis naa ne ba ay bëtam taan ak keroog mu yàgg mu daal di tekk mu yàgg euh, fekk na lu jiitu keroog ba mu ñëwee ba dem fa di ko ko siyaare dafa ma ne waaw moom de euh, yow de defe naa jàpp na la jàpp biir loolu la ma wax daal ni moom moom day dafa tëddut ndax danoo nax ba dem waaye sàllaa bu tëddoon ñu di ko seeti day Eh, dana am yooyu dañ ko jëfandikoo te kon du dem ndax jëf jëfaaleel képp ku bëgg lu baax te bëgg a jëf te mënoo jëf ci saalal ak wax loo xam ne lu baax wala luy defar loo xam ne li naroon naa yàqu mu defar ko ci wax waxam nga xam ne wala tontu loo xam ne lu mënta ñàkk la lu ñu war a tontu eh, mu tontu tontuwaaleel képp ku bëgg lu baax te xam lu baax te dégg lu mu war a tontu te mënuñu jaa tontu wala amul fitu tontu ca wala amul fitu wax ca kenn fekk ko ci loolu la sëñ Mor laa seere waaw eh, loola ci ba ma ko siyaare ji rek loola ma ne ma sàllaa bu kenn danañ ci am ñu ci ci jàkka ji waaye mu ne ma dañoo nax ba dem dañoo nëbb dañ koo lëm rek waaye tëddoon dara danañ dem seeti ko te buñ ko seet dañ jëfandikoo dara xam bañ a ndax daal li doon def kenn mënu ko cee wuutu daal ni ma ne ndax jëf jëfaaleel la jëf ju mat ci misaal rek ak wax waxaaleel la wax ju euh, mataleel la la nga bëgg wax te ñi ko loolu moom kenn fekk ko ci fekkee ne am na lenn lu mu bëgg ci adduna Tuubaa lay doon wax wax naa ko bu yàgg doom la na ko ok am na lenn lu mu bëgg ci adduna ko Tuubaa lay doon euh, na ni ma ko waxee rek léegi moom mu ne neexutu seen ci sëriñ bi li mu fi def ñëpp teg nañ seen bët ñi xam ñi xamut ñi xam xam nañ xam nañ lu bari ci Cheikh Abdou Lahad neexut a xam sax waaye ñi xamut sax am nañ lu ñu xam ci Cheikh Abdou ab taxawaayam ci dëkk bi mooy taxawaam sëriñ bi rek ni sëriñ bi toll ci dëkk bi rek ni ni dëkk bi toll ci sëriñ bi rek noonu la toll ci sa ab laat noonu rek la. mbiram daal doy lool ni nga xam ne la tur bi tumuraanke daal nii la ay mbiram doy waar waaw yéen yàlla ci barke bi rek barke bi rek bu fenk ci di lu baax ak di ko wax ak di daw lu bon ndax ngeen raw ko ndax kat démb moom tegatuloo ko ëllëg. tegagula ko tey rek la war fas yéene jant bu ne ngeen sàmm jant ba rafetal ko